lu bokk ci diine ji jëfe li sa borom yàlla santaane ci al amru bil maarufi wal nahyi anil munkar ah bismillahi arrahmani arrahim أيها الإخوة المسلمون في هذه الأيام يستعد كثير من المسلمين استعدادات كبيرة وهائلة لاقتراف ذنب كبير يعني بك جلدي تفنيين طلو ndagam sax du fan yi jiitu ak fan yi ñu toll ñu bari ci jullit ñi ñu ngi waaj ñu ngi waajal lëf ñu ngi préparé ay préparation yu rëy ngir def bakkaar bu mag a mag a mag hmm. zanbin kabirin yulattixu alaqatahum billahi bil awsaax wa yumassilu suu al adabi maahu taala ñu ngi waaj di préparé ay préparation yu rëy rëy rëy di fara alal yu bari di waaj waaj yu rëy ngir bëgg def bakkaar bu mag boo xam ne day taqal ay salte seen diggante yàlla seen relation bi ñu am ak seen borom yàlla lii ñu waaj di ko bëgg a def dafay def ay salte yu bare bare bari te itam waaj li ñuy waaj di ko bëgg a def suñ ko defee ak ñàkki teggin lay doon gu ñu jëme ci seen borom yàlla inna dalika huwa xuduusu amrin istankarahu almawla jalla jalaaluhu wastaqbaxahu wa sammaahu chatman la loolu ñu ngi bëgg def lii laa koy leerale moo di sama am mbir moo xam ne day bëgg xew ci senegal ak ci àdduna bi te mbir moomu sa borom yàlla da koo ñaawlu mbir moomu sa borom yàlla da koo tudde ne ay xas yuñ koy xas la فقمت أنت أيها المسلم فأبديت موافقتك على ذلك السب والشتم وفرحك وابتهاجك به واحتفلت به وقدمت بمناسبته الهدايا الفاخرة لأبنائك وأصدقائك أو أعطيت الهدايا بهذه المناسبة فقبلتها مير مومي خمنا سابرم يالا دكو نياولو تدكو تد أي خس ينقى خس ñu koy waajal ci biir réew mi yow jullit bi nag nga di préparer pour wane sa mbégte ci loolu yi di bëgg a am te yàlla tuddi ko ay xas yu ñu koy xas di dañuy bëgg a xas yàlla subhanahu wa taala yow nag yow jullit bi nga jóg fas yéene ah feetu ci bis bi ñuy xas yàlla feetu ci xas gu ñuy xas yàlla préparer ci ay cadeau jox jox say doom ak say xarit ak say am di jàmm wala ñu jox la ay cadeau nga nongu ci occasion wu xas bu ñuy xass sa borom yàlla subhanahu wa taala ayyuha al muslim إن الإنسان في بعض الأحيان يفعل أمورا لا يفهم مغزاها ولا معناها بكم جيل من nga xamne yenn say nit ki dana nek di def lo xamne limi def xamut limi tek deug deug xamut la mu wund deug deug nit ki da def da nak bi jëf ay jëf yo xamne jëf yi day ëmb lu mu xamut day ëmb lu mu sétlu day wund lu mu xamut إن كل الذين يستعدون للاحتفال مع النصارى بأعياد الميلاد إنما يفعلون كل ما قلته. نيا خب مولم نيا خبنا تبي السنغال أكل السنغال مولم جل لي تيا خبنا بيجي بحاجة pour andak ak nasaraan yi feetu 24 ak 31 décembre li ma wax la bëgg def loola moy lan ñuy xass yàlla ngay feetu ci xass gu xass yàlla ñuy xass yàlla nga wone sa kontaan ci ak sa d'accord ci ذلك أن المسيحيين في هذه الليالي وأنتم تعلمون ذلك يجتمعون في كنائسهم ويصفون عبد الله ورسوله وعيسى عليه وعلى نبينا السلام بأنه الرب أو هو ابن الرب لولو موي مودي خام نين ني نيب تي يويو غودي 24 اك 100 ديسمبر خام نين نصراني داني تي غودي داني داج سين ايكليزي دي فا اي واخ يو dañ ci wax ne jaamu bu yàlla bu sell boobi tey ab yonentam alayhi wa ala nabiyina salaam jaamu bu yàlla bu sell boobi tey ndaw lu yàlla yónni te moo di yonent yàlla Isa xam ngeen ne nasaraan yi ci guddi trente ak vingt dañuy daje ci biir église yi tey itam dañuy feet ngir di boo tey de boole ci wax ji ne Isa moom mi yàlla la wala Isa moom mi doomi yàlla la ñi nee nañu yàlla la ñi na doomi yàlla waaw النصارى يزعمون ويعتقدون في هذه الاحتفالات أنهم يحتفلون بميلاد ابن الله nasaraan yi bi ñuy feetu vingt quatre ak trente et ñoom dañoo gëm dañoo jàpp ne dañuy wone seen kontaan te dañuy feetu ci occasion juddu gu doom juddu laa ilaha illa allah nisbatul ibni ila allahi wa kadalika wasfu gayri llahi birrububiyati huwa akbaru zunub te wax ne yàlla am na doom askan doom ci yàlla wala nga fekk keneen ku ku dul borom bi subhanahu wa taala ku dul allahu alladi laa ilaha illa huwa nga wax ne yàlla la loolu mooy bakkaar bi gën a rëy ci bakkaar yi mooy benn bakkaar bi yàlla seppi ne du ko baal kenn wa huwa shatmun lillahi taala te itam askan doom jëme ko ci yàlla subhanahu wa taala xas la xas dëgg la mm-hmm. wa doon gum doon xas yàlla wax gu mu wax na xas yàlla la bu leen jàpp ne mukk sama xalaat la wala sama opinion la wala sama gisin la déedéet yàlla ko waxal boppam dem leen ngeen ubbi téere xadis bi gën a wér ci téere xadis تيري يدف وخي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تيري بتي جنة وير موي صحيح البخاري أبلينكو دم لين تخاج فوكيل با أنيار دم لين تباج نمرو 403 سير لير حديث نمرو 4974 لان لا برم تبارك وتعالى وخ تيري بيما وخ تباج بي تنمرو حديث بي أنيكو وخلو وخدي نودينكو تجدون الله تبارك وتعالى يقول كذبني ابن آدم لا إله إلا الله ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك ثم بعد هل دفع مخفوفني دوم ما عرف من يعرف ما يسأل تقول كون سن لا إله إلا الله ثم بعد هل دفع مخفوفني من يعرف ما يسأل تقول كون سن <laughs> nee maa ko sàkk ne ko dinaa la dekkal mu ne mënuma koo dekkal te moo ne sàkk bu njëkk ji day gënte yomb fi man dekkal gi loolu suñu borom yàlla jëkk a wax ci genn wàllu gu jëkk ci xadis suñu borom yàlla bëgg nu seetlu ne yow nit kii wax ak yow mi déglu yow nit ki ndox nga woon ndoxu man yu ndox yàlla fab ndox moomee te ndox mi ñam la wu jigéen lekk ak góor ak ndox mu ñu naan yàlla fab ndox moomee ak ñam wa soppi ko melenum ndox mu ñu wax man yu góor gi ak jigéen ji jëkkër ji ak jabar ji ànd man yum ku góor ki dugg ci ku ji biiru ku jigéen ki mu seen ñaari man yooyu jaxasoo ndox mu jaxasoo moom mel suñu borom yàlla fab di ko soppi di ko évoluer ba mu nekk garab mu di ko soppi di ko évoluer ba mu nekk dogu yàpp mu ko soppi di ba mu am ay yax ba mu ji mu doon ndemur moo xam ne fotis la boo xam ne dafa yor jëmmi nit ci biiru jigéen yàlla def ca jigéen ji amul lu may yëg muy yëngutu ba bis ñëw waxtu ñëw mu soob sama borom yàlla doom jooje juddu te fekk ndox la woon mu judd di jooy di xool te fekk ndox la woon yàlla di màggal ba mu yàgg muy raam ba mu yàgg muy ree di jooy di jàng wax ba mu yàgg muy dox di wax di mer di kontaan di ree di jooy te fekk am ndox la woon yàlla ne man man loolu su ma demee ba nit kooku dem ba am juróom-ñetti fukki at mbaalu ko ëpp mbaalu ko yées mu dee ñu suur ko ca bàmmeelam bu demee ba suuf si lekk yaram wa si lekk yax ya mën naa ko dekk dekkalaat mu doon ka mu doonan ngeen ne waxuma dëgg man mën a fab do man ñu def ko nit mënumaa ku dee yàlla ne ne ngeen damay sant loolu leen ko war a wax lu mu ci teg wa chatamani wa lam yakun lahu zalik mu ne sa doomu aadama خاص نما تورم ولا سنة خاص ها ما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا من خاص قوم دوم آدم خاص ما يروح قوم وحنا يا أمنا دوم وأنا الأحد الصمد كمن من ما كان كويتكي ما يكن يب جبل ما يفجر يب سين سخلة كان دوم دفع الدرق لم ألد ولم أولد من كن جرمة جرمة كان ولم يكن لي كفوا تيتم او ما بن بن دوما مروم كن كان مرون تولون من ما من امنا مضوم خصنا ما تجوم ادم مروم ورني ما خص يا سبحان الله يا سبحان الله هل تملكك الرعب يوم يدبل ندخ تيتو يوم يدبل ندخ تيتو بجا خص يلا يلا دا دوما ما خص ندخ تيتو بجا خص يلا شتم من السماوات والارض خص مور بماك بن خمس wax na ne bu àllaaxira xamal na ne bu àllaaxira asamaan juróom-ñaar ak suuf si da koy ñëpp ci loxol ndeyjooram nga dem di ko xas wala ñu xas ko fañ koy xase nga fekk ko xas yee ci occasion wu xas yi nga ànd ca feetu nga wane ci sa mbégte jël cay kado joxe cay kado feetu ko ak a ñàng ak a raglu weesu na raglu weesu na ñàng weesu na raglu hmm. ayyuhal muslim hmm. tasawwar annaka wajadta shakhsan yaqtarifu jarima yow jullit bi imagine lii ma lay bëgg a wax soo fekkoon kuy def lu ñaaw la muy def au lieu nga ñaawlu ko nga rafetlu ko ànd caag moom ndokkeel ko ca boo fekkoon ku yor ku toog yor kaasu wiski sàngara di ko naan nga waroon ko koo tere tereetoo ko ko mu waroon laa naqari naqareetu la nga ne fa di ko ca gërëm ak di ko ca ndokkeel wala sax nan nettale yow mu fekkoon ab chauffeur boo xam ne day dawal oto kenn ko bokk ci kilifay réew mi kilifa goo xam ne jigéen la jigéen bi nekk ci biiru néegam te di ci kaw lalam xelam dal retiix mu jàpp ne fii jàmm rek ku fi fekk ak chauffeur bu mu bëgg ba def ko doom wóolu ko ba jox ko otoom chauffeur ba fab paaka ñëw fekk jigéen ja ci kaw lal ba ci biir néeg ba mu tàmbali di ko rendi xateet te ji walwali yow nag nga dox ba yem ca loola gis ab chauffeur buy rendi patron bu jigéen ci biir néegam nga yem ca gis nga crime bu mag gis nga lu ñaaw gis nga lu naqariwu la daal di woo woo police ak gendarmerie defoo dara lu may kontaan kontaan ak waa ji ci ni mu ci am gum amoon li mu bëgg te rey patron bi nga di ko ci ndokkeel ci rey gum rey patron di ci ndokkalante ak moom di ko feetu di teew na sa mbégte moo loolu ku ko def boo seetloo sa jëf ji dëgg-dëgg ndax da gis ni jëf la ju ju ju ju aw yoon joo war a jëf joo xam ne dañ caa war a dëkk ba ba ngay faatu am lu ñaaw la loo ciy xalaat dëgg-dëgg. Uh-huh. la shakka sàkk amul ci ne boo xalaatee te xalaatee xelu nit da nga loolu kay kenn waru cee kontaan feetu. kenn wër te feetu ci occasion gis nit kuy def crime bu tol noonu ngay bég ngay ndokkeel ki def crime bi ngay ndokk teg sa mbokk ci nit ndax am na ko def crime nit def na crime nga dem di ndokk leen teg sa mbokk ci nit ndax def na crime ndax nit def na crime loolu di mhm. ginnaaw noonu la mhm. fa qaarin haadayn al fi'layn ma yooyu ñaar yooyu ñaar bàkkaaru kirimub naan sàngara bakkaaru kirimub rey sa patron bu la wóolu woon nga dem yow mi gis rey gi yow da reyoo ko waaye nag biñ ko rey day biñ koy rendee bi nga gisee deret ji mi wala wali day naqariwu de da nga caa bëgg ndokkalante ceeg sa yeneen mbokki nit yi ca bëgg ni yow ngeen di ndokkalante lu ngeen di ndokkalante ci occasion crime bii waa ji def jëndale leen loolu ak beneen crime bu gën a rëy te mooy xas yàlla subhanahu wa taala mbokkum jullit mi xas yàlla ak refe patron bu jigéen lu ci gën a rëy mbokkum jullit mi xas yàlla ak naan sàngara lu ci gën a rëy xas yàlla aw takzibi xas yàlla wala yàlla wax nga def wootu dëgg lu gën a rëy wa anta tahtafilu maa shaatimiina lahu yow nga dem di ànd ak ñay xas yàlla di feetoondoo ak ñoom ci occasion wu xas gi ñay xas yàlla di feetu nga ànd ak ñoom di ndoo ak ñoom ci loo xam ne ba ko waxee bañu ko defee yàlla mu màgg mi ma waxal bopp na dañ koo xas nga jël ay kado yu rëy fay xaalis bu bari say kado jox say doom jox say jabar jox say mbokk jox say am ji doom say am ji jàmm am ji jox la kado nga nongu ci ban occasion ci occasion dañuy xas yàlla subhaanallah ah ayyuha almuslimun iqra'u ma'i fi alqur'ani alkarimi fi surati maryam mbokk julit yi kay leen ànd man jàng li yàlla wax boppam ci alqur'an ci saaru tudd maryam te xam ngeen ne maryam mooy yaayu yonent yàlla isa alayhim assalaam yal leen yàlla dolli jàmm ak leer di ñëw leen ñu jàng ci saar wu ñu tudde maryam ci ay juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ba juróom-ñeent fukk ak juróom suñu yàlla lu mu wax يقول تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سنبرم يلا دف وخنا وقالوا نصراني وخنا اتخذ الرحمن ولدا من يلا امنا دوم لقد جئتم شيئا وخنا وخ جوري وخنا وخ دي نياو وخنا لو اموت وخنا لو نيكوت وخنا لو بون تكاد السماوات يتفطر وخنا وخ جو خامني اسماني جوروم نيار اتمي كو اسماني ياغي بغا خار ndax wax jojo suusaañi bëgg a xar ndax wax jooju ñuy wax ne la dafa am doom montagne yaa ngi bëgg a daanu bëgg a màbb bëgg a nekk pënd bëgg a ndax wax wax yaa ne yàlla am na doom ndax ndax dañoo wutal yàlla doom te jëkkul jaaduwul ci yàlla muy am doom yàlla jombante naag di am doom mbokki ji xool leen am doom xool leen am doom seet leen kii am doom fa muy jaar door am doom xool leen góor ak jigéen gu wét ci nekk dañuy def ba am doom yàlla jombante naag loola jombante naag lu dul loola ci lépp lu sell di jombante na itam ak doom ji askan ci moom ak nu mu mën a juddoo sa borom yàlla wax ne in kullu man fi samawati wal ard mboolem ñi nekk ci asamaanu juróom ñaar ak suuf si ñëpp ñi fi ne duñu dara dara dara ludul ay jaami yàlla in kullu man fi samawati wal ardi illa ati arrahman abda duñu dara ludul ay jaam yo xamne dañu ñëw fi kanu seen borom yàlla ñun ñëpp doon ay jaamam yonent yàlla muhammad jaamu bi yàlla yonent yàlla musa ak Isa jaam yàlla lañu yonent jin fi jin fi jitu woon Ibrahima Adama Nuuhin jaam yàlla lañu nit ñëpp jaam yàlla lañu malaaka yi jaam yàlla lañu awliya wi waxe nopi إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا مهلم منك تكو أسمان جرم يار أكسوف بن الدر لدل جاي جامع نقول لقد أحصاهم يلا وين لن كنت لن وعدهم عدا يلا خمن لن وين لن كنت لن وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا تكن كنا تي نيوني da nga ñëw ci kanamu sa borom yàlla alakhirah yow dong yàlla dong ngeen taxaw mu rek la mboolem ni nga mësa wax ak mboolem ni nga mësa jëf te mu wuteeg ay ndigalam ah ayyuha almuslim إنك إذا قرأت هذا الحديث الشريف وهذه الآية الكريمة وتصورت مغزى الاحتفال بأعياد الميلاد فلن تشك في أنه جريمة عظيمة موكم جلد مي موكم جلد مي آية بي ما واخ لغي ak xadis bi ko jiitu te suñu borom yàlla wax ci wax ju réejoo ji nga xam ne nekk la ko te jooyoo sax yombul <laughs> nekk la ko te jooyoo sax yombul doomu aadama ne dafay fan allahu akbar te la dewul ko woon a sañ doomu aadama xas na ma dewul <laughs> ko woon a sañ moo doomu aadama te nga xas sa ndey te nga xas sa baay te nga xas nit te nga xas ñëpp te bàyyi si yàlla lii daa lii yàlla tudde xas te mooy dañ ko wax ne dafa am doom te ne naan moom mooy kenn ki mooy ku càppaculi ki nga xam ne mooy ki ñëpp jublu ci moom muy wutal muy defal ñépp seeni aajo te moom kenn du ko fajal aajo ne amu ko moom mooy mooy ki nga xam ne kenn la te itam jurul kenn te kenn juru ko te du naw la kenn du moroomam kenn ba nopp ñu di ko xas xadis boobu ak aaya ji ku ko setantal dootoo am loy sikki sak mukk ci na feetu 24 ak 31 décembre ab bakkar la bo xamne bi ab jullit wuro ko def mukk te ko non def don ko wara tout te jéglu ko. fa ida kunta musliman musaddiqan bilqur'an alkarimi wa birisalati nabiyillahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fastaghfir wa tub kulla lahzatin wa kulla farantin qadayta kon nag yow jullit bi ab yow jullit su fekkee ne bii ab jullit nga gëm nga alquran lii nu wax léegi mu wax la saaro mu ne te mooy Mariam wax la euh, euh, numéro aaya ak xadis bi ñu wax léegi te mu ñëw ci Buxaari ma wax la ban tom la nekk wax la ban page la nekk wax la numéro xadis ba tekki la xadis bi te bu la nga dem vérifier lii boo ko seetee bu fekkee gëm nga ko gëm nga alquran gëm nga ne sayidna muhammad yàllaa ko yónni sallallahu alayhi wa sallam kon tuubal feetu boo ma sa feetu vingt quatre wala trente et un décembre tuubal bépp instant boo ma sa frais wala bépp fifteen boo ma sa frais ci feet yooyu te xam ne loolu du suñuy feet ñun jullit ñi waruñu koo feetu su fekkee am na ay cadeau yoo pare woon ba noppi ba di ko waaj a joxe ba joxe des ca jëndal nga sa ay ay ay njaboot ak say doom ak defar nga sa néeg waajal nga ko loolu lépp fomm ko dindi ko te bakko te xam ne dellu ci dëgg moo gën continuer ci ay caaxaan waajal ay bàkkaar ba di ko bëgg a def bàkkaar nga waaj ko ba di ko bëgg a def nga xam ne bakkaar la waaye nag gisal nga waaj ba jumtuwaayu jëf yi yëpp nga ut ko waaye jotagoo caa àgg wal batikul te tuub te jéggulu yàlla te yàlla ku ko jéggulu mu jéggal la yal na yàlla boole jéggal tuubal te dellu gannaaw te li nga jotoon wut ci ay cadeau ak li nga war a préparé ci ay trente décembre nga ne ko teg ci suuf loo ci mën a gas suul gas ko suul loo ci boo xam ne alal la joo xam ne bëggoo mu yàqu denc ko ba yooyu yëpp passé nga seet neneen noo ko ci réunion yu bokk teg di ko ko feetoo di ci bég ci guddi koo xam ne ñoo nga cay dem ci ay église di fa xas yàlla di wax ne yàlla ah, ah, diw doomi yàlla diw yàlla la loolu bu ko def mukk tuub ko te jéglu ko mhm. ayyuha almuslimun inna an-nasara hum jiranuna wa yajibu an nuhsina aljiwara maahum qawlan wa amala mbokki julit yi chrétiens yi ak catholique yi suñuy dëkkandoo lañu te dana war a dëkk ak ñoom dëkk gu rafet dana war a ànd ak ñoom ànd gu rafet dana war a seq ak ñoom jàmm dëkkandoo jàmm ca gën danoo war ku ci feebar nu seeti la danoo war ku ci am aw tiis nu massawu la danoo war di jëflanteeg ñoom ci ay teraanga lépp lu rafet loo xam ne man nañ leen koo defal te doonut lu naqari yàlla mën nañ leen koo defal ci lu baax ko ci fekk ah, gis ab nasaraan mu néew doole nga am sa cent mille francs yoo ko mën a dimbalee jox ko ko ngir yàlla jox ko bu fekkee ne bii ma ngay def lu baax nga mën ko saa dimbali dimbali ko dëkkandoo gu rafet ñu ànd ak ñoom ànd bu rafet waaye nag ci kaw ñu bañ bañ a dem bokk ñoom loo xam ne ñoo ngi koy def waaye yàlla da koo tere loo xam ne yàlla da koo tere sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam da koo te tere ñoom buñ ko dee def bun ko ànd ñoom buñ ko bokk ñoom loolu du yàq dara ci dëkkandoo gu rafet gu mën dëkk ñoom dëkk bu rafet hmm. qaala taala laa yanhaakum allahu gu rafet moom la nu sant ci suñu diggante ak mboolem nit ñi nasaraan yeeg yeneen xeeti diine yi ñoom ñëpp suñu borom yàlla nee na laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqatilukum fi diin nee na yàlla du leen tere xeeti nit ñi nga xam ne ñoom day xeexuñu ak yéen ci seen yi xeexuñu seen diine xeexuñu leen xeexuñu lislaam walam génnewuñu leen seen i dëkk ngir doon ngeen doon ñu leen fitnaalu ñu leen ndax doon gën ay doon ay jullit xeexuñu xeex xeexuñu seen diine yàlla du leen tere mukk yàlla du leen tere mukk ngeen leen jëflanteeg ñoom ci kaw ak mbaax ak maandute ak njub ak lu rafet yàlla moom daa bëgg jëf ju rafet ak wax ju rafet loolu alquran la aha amma al ibtihaaj wal ihtifaal maahum ala ñu kon aaya jooju suñu borom wax nu ci ne mën nanoo dëkk ñoom dëkk nu rafet te yàlla terewu ko yàlla newul mukk nga ne sama dëkkandoo ji ko bon la ndoxub chrétien la wala ko bon la ndoxub yahud la déedéet déedéet ñoom christianisme la ñu tànn sans borom yàlla dey moom mu yónni woon Jésus moo yónni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te itam nee na képp ku nekkoon ci jeneen diine judul islam gannaaw bu islam ñëwee joojee diine santaanee tuma ko soxlaatuma ko bàyyi leen ko fa ñëw ci l'islam bàyyi leen ko fa te ñëw topp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg sama ngërëm man yàlla ku bëgg ñu juboo toppal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku toppul Muhammad loo def aw ma ci soxla bi Muhammad ñëwagul christianisme baaxoon na bi Muhammad ñëwagul judaïsme baaxoon na waaye ginnaaw Muhammad xas na ñëw jeneen diina munta baaxate inna diina inda allah al islam waaye lu te loolu du tee doomu aadama yàlla da ko may mu am liberté mën a tànn def li ko yàlla sant am ci tuyaaba dem aljanna wala mu def nag li ko yàlla tere wala xira mu jigaale ko sa borom yàlla bu ko yàlla fudd ñoom ñaara waaye nun dëkkan nun doomu aadama yi nag munu neen duñu forcente dañuy bàyyi kenn ku nekk mën na noo leeral mën na war na noo leeral war na noo daawa war na noo xamal ñëpp ne kaay leen topp Muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn ku ne man de ko man de man Jésus laay topp chrétien laay doon nan nekk chrétien bàyyi ko bu ngeen dëkkee dëkk la moom dëkk gu rafet bu feebaree seeti ko bu amee aw tiis massawu ko bu soxlaa ndimbal ci côté social nga mën ko dimbali dimbali ko yàlla ne bañul nu seq ak ñoom lu baax ak lu rafet ndaxte yàlla dafa bëgg lu rafet loolu moom nan ko def am maa nag loo xam ne lii bu leen ca fekkee ànd ko ak ñoom day jëf yo xamne ñom ñong koy def te ñun yàlla dañu ko tere sayyidna Muhammad dañu ko tere sallallahu alayhi wasallam loolu buñ koy def ñun buñ ci ànd ak ñom mukk li leer na nañ fa ayuti nak fa yàlla du santaane lu aay te yàlla mo suñu bu ñun ñëpp te lu mu sant sañ nako dañu ko wara def lu mu tere sañ na ko dana ko war a bàyyi. فكما أننا لا نشرب الخمر إذا شربوا ولا ينبغي أن نأكل لحم الخنزير معهم إذا أكلوا فلا ينبغي أن نحتفل معهم هذه الاحتفالات إذا احتفلوا كم نيغا خاماني بي مونو فيكون كو بوكو سي نيوم مو يور كاس ويسكي دي نان ورونو كو نيكو نانو اك موم ناخ يالا دون كو كم نيغا خاماني بي بو بون دون لك سين يابو بورك مبام خوخ ورونو كو لك ndax yalla te yàlla ci ñëpp la ko xaraamal waaye ñoom bu ñu ko dee lekk ndax wax ne danga na ci ñoom loolu a tax ñu ko bokk ak ñoom naka noonu nag buñ dee feetu dañuy feetu ci occasion juddug doomi yàlla laa ilaha illa yàlla amul doom occasion juddug doomi yàlla nee nañu moom la ñuy feetu nga dem di feetandoo ak ñoom ci ne da ngay feetu ci occasion juddug doomi yàlla yàlla amul doom kooku feet feetandoo koog ñoom sañu nu ko ëpp naa def Uh-huh. amma an yow mu laye yow mu bëgg a laye ne man féetuwuma loolu damay féetu rek féetu fin d'année fin d'année ban année ban année ah ban année féetu fin d'année ngay féetu 31 décembre fin la damay féetu féetu ah, fin jur ñi am nañu seenum at am nañu seen année mooy at mooy année hijri kenn du doon feet kenn du ko toppandoo feet jaamu yàlla la ak jullit léppam day doon jaamu yàlla mbirum feet islam euh, euh, euh, réglé na ko régleel na ko jullit ñi réglé bu leer sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamal nanu ne mboolem xeeti feet yi nga xam ne moom la nit ñi feet jullit ñi ñoom yàlla di leen ko remplacer ñaari feet dong muy feetu korité ak feetu tabaski ñaari feet yu amul leen gu leen ñetteel ci islam kon nag ñaari feet yooyu nun nan ko feetu te yem ci ab jullit day déggal yàlla ab jullit day topp ndigalal sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam falnatamassak bi diinina kon boog nasir ala minhaji rasul kon boog nañ téye suñu ji bu dëgër diine lislaam bu dëgër te yàlla ci yàlla dimbali mhm. te nan dox ci yoon wi nga xam ne ci la sayyidina muhammad jaaroon sallallahu alayhi wa sallam te ci yàlla dimbali yàlla na ba suñu jëf ak suñu wax lépp ñu roye ci jële ko ci alquran ak ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yàlla defal te yàlla jéggal na suñuy bàkkaar te baal nu te jubal nu wa uridu an unabbiha a'immata almasajidi bi anna bala maa jeexal nag bëgg naa fàttali yilimaani jumaa yi ak yilimaani jàkka yi ne lii ma leeral war nañ koo leeral war nañoo leeral ñi ñey ñëw ca jàkka ja moo xam waxtu tisbaar la moo xam waxtu sàkkusaan rawatina bisu àjjuma yi mbooloo yi di bari war nañ leen a leeral lii ma leeral ci waxtaan wi ba mu leer leen ndax jullit ñi ci bari yu ci bari xamuñu ko kon bokk yéen yilimaan yi am ngeen responsabilité xamal leen ko te bu leen fàtte na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax na ilimaan dafa wax ne imaam njiit lu ne euh, euh, ab sàmm la te yàlla dina ko régler la muy sàmm kon bokk yilimaan yi ji yàlla dana ko régler la mu jottali maamun yi kenn néew ko ne force maamun yi nañu def ak bu ñu def waaye nag war na ci moom mu jàngal leen li yàlla wax li sayyidina Muhammad wax sallallahu alayhi wa sallam war na ci ñoom lépp liy xew ci adduna bi ak société bi ak ci réew mi ñu ne leen lii day lii la ci yàlla wax lii la ci bëgg lii la ci bañ lii day ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi bëgg lii la ci bañ wax ji ak leer gi moom war na kon mbokk yi man ju ne borom rajo bu ne borom télévision bu ne bu fekkee jullit la na leeral lii borom xam-xam bu ne na leeral lii baay bu na ne dajale soxnaam ak ay doomu damaa jëlli di jënd ay kàddu di leen jox waaye na leen leeral lii na leeral fii tey itam yaayu xale yi na leer la ay doomam te na leer la borom këram jëkkëram na leen leer na ko leeral lii ma wax fii bu fekkee xamu ko mën na ko jàng fii te xam ko tey itam képp koo xam ne njiit nga njiital diine nga ab sëriñ nga seytaane bi war nga leen a leeral lii képp koo xam ne kii itam njiital ab association islamique nga ña nga àndal ci station war nga ne leeral képp kuy jàngalekat di jàngal ay gone di leen yar lii war nga leen koo leeral kenn ku nekk ci nun yàlla nee na ab sàmm nga te yàlla dina la régler la ay sàmm loolu Seydina Muhammad moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam ci xadis mu ci Buxaari yonent bi lu mu wax yaqul kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi yonent bi nee na kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la te yàlla dana ko régler la muy sàmm al imaamu raa'in wa mas'ulun an ra'iyyatihi nee ëmb na yilimaani jàkk ëmb na ko jiitam dëkk ëmb na ko jiitam réew mbooloo moo jiite rek yaay seen imaam sàmm nga te yàlla dana la rek la mbooloo moomee nga yàlla la yàlla doon sàmmloo ah warrajulu raa'in fi ahlihi wa mas'ulun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne góor gu nekk ab sàmm la ci njabootam soxnaam ak doomam te yàlla dina ko rek la la ko yàlla sàmmloo ci soxna ya ak doome ndax def na ko والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها كيف إن أنت بتكتين الجيجين صلى الله عليه وسلم من الجيجين أبسام لكي نيغو بروم كرم أبسام لكي نيغو بروم كرم تنيغو ميسي مانام أي دومم وانا لين سام بروم كرم وانا كو جوخ أي كونسي أك أي لابير كيلو مخام تي دينا دغم دغو خام جيجين سام لكي بيون نيغو بسيم تيال نغرر لبي سام والخادم راع في مال سيده حتى كي ليغي صح xakkaa kii liggéey sax patron lay liggéeyal moo xam day togg ci kër gi am day liggéey ca bureau ba am ci usine ba ñu ñu euh, borom kër gi mbaa borom euh, euh, usine bi wala borom bureau bi am ko lu mu ko dénk di ko liggéeyloo ñu liggéey ci dara loola sax moom mi koy liggéey ab sàmm la yàlla dina war a dal loola muy sàmm yàlla ne yonent bi nee na yéen ñëpp ay sàmm ngeen te kenn ku nekk yàlla dana ko rek leela muy sàmm. Buxaari moo ko solo. ألا هل بلغت ما نجي لا جن بك جلدي نح جت لنا اللي الله وحلو جن بك جلدي ما نجي لا جن نح عبد العزيز سر جت لنا بك جلدي ما نجي لا جن نح عبد العزيز جت لنا بك جلدي نح جت لنا سامبرنا الله سير المن جت لنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته